réew mi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne fii ñu toog miin ngeen ko ñun fii ñu toog miin ngeen ko axlu Sénégal gépp jàkkaarloo ñun ak fii ci Serigne Cissé officiel yaakaar naa ne muy page boo xam ne muy lépp luy actualité rek lu am dina ci jàkkaarloog yéen waaye gars yi tey li ñu indi ci table ji dafa bari dafa bari lool lool lool seetum loxo bi dinañ ci ñëwaat wàllu wér-gu-yaram dinañ ci ñëwaat wàllu doomu aadama bu tëju dinañ ci ñëwaat wàllum paj dinañ ci ñëw waaye li nga xam ne mooy actualité bi mooy Abdou Aziz Aly Ndiaye mi nga ne tey jii dafa ne diggante Modou Lo Siteu ku daan da ngay bëre ak Balla Gaye numéro 2 bu loolu amee dañuy ñëw ci Serigne Cissé mu Serigne Babacar jàkkaarloog moom laaj ko ci lan mooy xalaatam yow may seetaan bu fàtte abonné ji page bi ndax page bi. Mhm. page yu lépp la. dama bëgg Serigne Cissé nuyoo ñu ñëw ci waxtaan wi ñëw ci seetum loxo mi ñëw ci wàllu ubbeeku ñëw ci lépp daal di may daal nag mu jël coow li ci diggante fan la Modou Lo jëm ak ki xam ne nii tey jii mooy Abdou Aziz Alé Ndiaye Serigne Cissé ñu ngi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin allahuma innaka taxlamu sihra wa xalaaniyati faqbal maxsirati wa taxlamu ma fi nafsi faxfir li sunubi allahuma inni asaluka imanan yubasiruni xalbi wa yaqinan sadiqan xata axlamu annahu la yuxsibani ila ma katabtu xale waridan biman xasabtahu li yaasal jalal wal ikram rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel Serigne Cissé officiel ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal wax waaye di leen baal ak di leen nuyu ci li gën a sakkan gën a yell làmboo jàmm xéewal muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu rawatina waa diaspora ba ak fii ci Sénégal bismillah Serigne Cissé ñu ngi lay nuyu yaakaar naa ne seetum loxo bi fi nekkoon ba léegi moo ko fa sëñ Cissé mm-hmm. yaakaar naa ne seetum man mi nga xam ne tey jii maa ngi ut liggéey mhm. man mi nga xam ne tey jii dama am wér yaram mhm. man mi nga xam ne tey jii lu ma dugg du sotti mhm. man mi nga xam ne tey jii yaakaar naa ne kayit bu kayit bu ma déposé du am dara Serigne Cissé kooku nan lay def ak yow ci seetum loxo bi lay jaar wala la jëm Serigne Cissé mu Serigne Babacar jërëjëf alaaji Fadam yàlla dafa mën a maye te yàlla daa mën a dimbaleeb jaam fatu ku ko am yàlla la ko jox mooy ubbeeku ku ko am yàlla la ko jox waaye yow mi toog am jaaxle ci sa yaram mhm. moo xam feebar moo nekk ci sa biir yaram def nañu machine waaye ba léegi xamula feebar ban xeetu feebar la mhm. da ngay wuti ji kayit kayit gu ne nga déposé ko te manoo am kayit ba léegi mhm. ngay wut xaalis ba léegi manoo am xaalis ba léegi nga tëju te xamoo lu la tëj sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ne yow mi may seetaan lenn laa lay laaj sa loxo droite ngay photo oh. boo foto sa loxo droite ñu la liggéeyee danaa la ko wax boo foto sa loxo droite bi bu la cat jàppee dinaa la ko wax boo fatoo sa loxo droite bi lu mën a nekk ci sa yaram bu dee raba la doon yàqal wala bëta la jàpp wala dañ la ko def dinaa la ko wax loola nag boo ko bëggee xam du lenn ngay def numéro boobu ngay jël rek nga woo sëriñ Cissé bu Seydi Aboubacar lépp lu nekk ci sa yaram wi insha allah dinaa la ko wax te sa loxo la ñuy tiim xam lu nekk ci yow mm-hmm. kon mbokk mi yow mi may seetaan ci sëriñ Cissé dangaa am problème mu yaram jaaxle nga ci sa bopp ci sa wàllu lépp ci mbiru àdduna fotal sa loxo nga yónnee ma ko alaaji Fadam Serigne Cissé yaakaar naa ne maa nga Amérique waaw maa nga Angleterre mm-hmm. maa te tey jii France wala maa nga ca Espagne mm-hmm. war a dugg ci liggéey mm-hmm. liggéey bi saa yi ma ci duggee la ma ciy génne du ko xam kooku Serigne Cissé kooku nu muy def kooku it ba léegi alaaji Fadam duñ def lu dul malade la buñ ma indil ci hôpital bi balaa may pikiir wala balaa ma koy bindal ordonnance danaa xam li dal malaat bi lan la toujours damay am liggéey waaye fa may am liggéey manuma fa weesu fukki fan ak juróom mhm. Serigne Cissé loolu daf may dal du ma tëb rek ne la nangam la dama koy xool ba xam li waral ngay yàqule lan la mhm. bu ñu ko xamee nag taxaw ca fas ki ne faj say aajo ca jafe-jafe yi gàllankoor yooyu nga xam ne day dugg ci say yaram di la yàqal ñu fexe dindi ko dañ koy seet ba xam lan mooy gàllankoor bi lan moo tax sa liggéey di yàqu ñu dindi ko insha allah bu soobee yàlla Serigne Cissé ba ci jii ki nga xam ne tey jii mhm. mu ngi yor liggéeyam mhm. te place ba mu nekk bëgg na cee gën a yokk mhm. Serigne Cissé kooku nan lay def ak yow ki nga xam ne dafa bëgg yokkute it am na sangat yoo xam ne kuñ ko jox nga yokk wax naa barki démb ne inna hasala risquna wa ma min daabatin fi ardi halallah wa ma min daabatin fi ardi ila halallah risquha waaye hasbunallah wa ni'mal wakilu lii sangal la goo xam ne képp koo xam ne da bëgg ubbeeku am alal ubbeeku ba nit ñëpp yëg ne ubbeeku nga sangal la goo xam ne bu ko mag sangoo dana am dara sangal la goo xam ne bu ko gunee sangoo dana am dara sangal la goo xam ne bu fekkutoon yoroo dara boo sangoo yàlla dana la dimbali nga ubbeeku bu fekkoon nga yori nag dana gën a ñoŋal sa alal ba yàqu-yàqu moom du amati ci yow wàll te yàlla dana yéegee say mbir ubbi ko ci mboole mi fànn ba sénégalais yëpp teg seen bët danañu dem ba jiiñ la naan la diw li muy am jinee ko koy jox te fekk du dara yàlla bind ne wama min dabatin fii ardi yalaalalaay risqoha jaamub yàlla bu ne am na wërsëg woo xam ne ñii dañuy gane jamono ànd ak seen wërsëg ñii balaa ñu jot ci seen wërsëg faaw ñu seetu ko mel ni sëriñ Cissé ñii nag lit day ñi am li ñuy am faaw rek sangatu bokk ci wala ay sarax yow mi may seetaan na bëgg ubbeeku gu mat sëkk fii la ñuy jaar defal la ko buñ la ko defalee yàlla ubbi say mbir insha allah Serigne Cissé wàllu nopp dama ciy dégg côté bu nekk nit ñaa ngi ciy wax ñi naan noobu 24 heures mhm. ñi naan noobu nangam ñi naan mhm. noobu nangam mhm. Serigne Cissé mbirum nopp jaaxal na réew mi ñaar yi yow mi may seetaan ci Serigne sa officiel dafa am koy bëgganteeg dama ne yow mi nekk fii ci réew mi bëgg am koy bëgganteeg da nga may wutal benn jënu yëbooy nga indiwaaleel ma ko benn doomu soble boo ñëwee dinaa la defaral genn xeetu noob goo xam ne bu fekkee ne dafa am ñaari jëkkër ak jëkkër ak jabar la seen diggante dem ba commencé am ay problème noob googu buñ ko defee da ngeen bëggante bu dee dafa am koy bëgg nag nga bëgg ko am ñu bañ ne du fi amee andil mhm. ma turam ak sa tur yow mi ko bëgg mhm. ma def nga indiwaaleel ma doomub soble ak benn jënu yëboo yi mhm. ma defar la noob goo xam ne ki boo ko jëfandikoo yàlla dana la defal sutura te seen diggante ñaar ba ci boo xam ne ñu bokk ndey ak te mënunoo fexe ba déggoo Serigne Cissé mu baaba kër si ne la fexeel wutal ma doomu soble ak benn jënu yeboo ma defal la loo xam ne yéen dana leen boole kër ga jàmm dana fa ne ba ci patron bi ngay liggéeyal nga bëgg mu jox la bopp andil ma jënu yeboo bi wala ak doomu soble bi nga indi ko ci kër gi wala foo mën a nekk ci àdduna nga bëgg loola woo ma ci numéro ba ma defar la noob gu wér péng incha allah bu soobee yàlla Serigne Cissé da ngay gis koo xam ne day nekk ak jabaram ci biir këram mhm. amuñu problème mhm. jàmm loolu lan moo koy def rab dana ko def saay-saay dana jaar ci ñaari woy dencante dëddli leen sëriñ si ne yow ma laa tamliku nafsun li nafsin say an wal amru yow ma isin lillahi dëddle goo xam ne bu ñu ko defee ci ñaari jëkkër ak jabar danañ dem bu ñu séenante dañu mel ne xaj ak muus dootuñu bëggante mhm. waaye ñaar ñooñu bu loola nekkee seen diggante sëriñ si mu sëriñ Babacar ne na nga fexe woo ma ci numéro bii boo ma wooyee ci numéro bii insha allah dinaa la taxawu ba lépp loo xam ne am na problème ci sa digganteeg sa jëkkër loola dana jeex dem soob na yàlla incha allah sëriñ si li mooy am na koo xam ne nii lépp lu mu yor ci poosam wala lépp luñ ko dig mhm. bu xëy du ci jot loolu lu koy def kooka nag dañ koy sangat sangatu cat kooka cat da koo topp ki nga xam ne mantu dajale dara mm. mantu yor dara place bu mu sarse ba rës xaalis bu mu dajale xaalis ba yàqu ku ko dig du ko jox lum dugg mu yàqu kooka buñ koy sangat dañ koy sang sangatu làmmeñ Mhm. insha allah buñ ko ko defalee yàlla dana ko defal suutura Serigne Cissé sa diggante ak Ndiaye Ndiaye yaa ko déclaré woon mhm. sa diggante ak Ndiaye Ndiaye yaa ko déclaré woon waaye dafa mel nii mhm. Aziz Ndiaye am na lu mu wax ci sa waaji Modou lu mu ca wax jàkkaarloog naa moom ne ne diggante Balla Gaye numéro 2 ak Siteu diggante Modou Lo ak Siteu ku ci daan dagee diggante ak Modou Lo ah loolu kay kon pare na lama doon ñaan la yàlla nangu déggu kon salaatul fatiha bu dalee ah, oh, amin la amin laay wax na man kay wax naa fii ne Aziz na ma jox avance bi ma yët ko Modou. oui sëñ Cissé yow moom moom moom. man amul lenn amul lenn Modou xaalis na ko jël ñu bëree moo Balla Gaye ñu bëree lan la. ah man damaa jommi di. looy jommi bul jommi Saalum Saalum dana ragal. a ah, sëñ a ah waa kër Modou looy ne ñu Balla Gaye de bëgguñ man bëgg naa. xam nga Aziz ci géew Serigne Cissé ci géew Baye ci géew loolu loolu loolu loolu <laughs> jar ndéem la eh! loolu leen la alors nga bëgg a dëgg ak Aziz ci géew man Aziz laa dem ci géew nga nga ne wala ma gis mu génne alawa ji waaw dama bëgg mu génne alawa ji nag dégg nga ak man bu ko defee ak tamajeeg yooyu yëpp man maa njëkk a génne ndënd ci na laa <laughs> <laughs> ilaha illallah fi mu toll daal Serigne Cissé daal digganteeg mu bu jeexee li am yàlla rek. suñu digganteeg Siteu maa nga cay ñaan yàlla yàlla miy joxe ndam yàlla nu may ndam ci daraja yonent bi. bu la yàlla mayee ma jël Balla Gaye. loolu dégguma li nga wax di bu ma yàlla mayee ndam ci kaw Siteu ma jël Balla Gaye de bëreeg moom ca arena ba. Serigne Cissé Balla Gaye mi. Demba Diop lañ bëree woon moom fi nu tooti. amitié amitié lañ bëree woon mu daan ma. waaw yàlla naa ko daan arena ci barke yonent bi. mu doon arena sunu am ko fa defet yàlla buñ ko fa am. waaye Balla Gaye numéro 2 day mu nga toog di la xaar rek de mu nga toog di guddal si kijam bi rek seet naa ko bay peñe muy wàcc rek waaw si la ñuy jàpp daan ko Balla nag mënatuma ko wax lu bëri ndax fi sama xarit la waaw waaw waaye daal li ma wétte bu maa ngi ñaan ci yàlla bu Balla Gaye numéro 2 Modou Lo taxawoon loolu dana neex Fadam loolu loolu loolu bu xamoon surtout fi gàmmu gi toll ñuy waajal gàmmu gi hmm. ñu ne Modou ak Balla taxaw na non lool gàmmu gi neex nga gis sëñ si dafa mel daa am loo denc pour combat boobu non dama koo bëgg da ki bëggoon dama màgg ci diggante bi te dama ko bëgg a wane ci yëf yi da ngaa daan Ama Baldé waaw daan Boy Niang mhm. waaye Balla Gaye numéro 2 dalaa ñeme lool waaw Balla moom ñeme na ma xam nga nit bu la daanee ñaari yoon dalay ñeme waaw waaye yàlla nanu yàlla dimbali ba combat bi taxaw bu taxawee bu taxawee lu ne ci mën a ne mu Lo Balla Gaye nga bu taxawee lu ne ci man a ne fana man ragaluma fa ma jëm assis nañu jox avance bi nañ joxe avance bi xaalis bi mu jël ko ci kër gi ne ko jox ma jox ko doomi góoraloo Aziz lii la bëgg Aziz bëggul Balla Gaye bëree kenn ay ñi ngeen di wax ni ñi bëggul ko Aziz Balla Modou Lo Balla Gaye la bëgg ndax loolu Sénégal. loolu combat feebar bu dul la ba na la rey. comme combat boobu doo fekk boobu coow doo fekk. dana la fekk maa la xam ak jàmm. dana la fi fekk. ah dana la fi fekk. dana la damay daw de damay daw de damay gàddaay. Aziz dama koy koj ci waawan. ca gàmmu ga këram laa koy koj na ko indi avance bi. ci gàmmu gii nii nii ci gàmmu gi këram na ko indi avance bi ah 300 millions yi wala dañ koo wàññi. ndax duñ ko yokk sax kay. nañ ko yéegal nañ mooy xaaju milliard wala. ah jege na ko de. <laughs> ay lii. laay <laughs> laay laay boobu bés. Serigne Cissé bu mu mënuloo Balla Gaye taxawee nuy duggee arène national du ma ko wax léegi ñu may catu. dañ may catu. <laughs> jërëjëf ki loolu laa ngi noonu gàtt bëri njëriñ. jamaykee. ñi am problème mu sëy dégguma ñi am problème mu sëy manuñ dara ci seeni jabar ñoo tax a jóg butéel bii gàtt bari njëriñ la ilaha illallah jamaykee waaw le grand promoteur ndeysaan mu ngi nii ku ko soxla ñëwal ci kër gi hmm? boo ñëwee ñu jox la ko incha allah dim sob na gars yi ñu ngi koy jël ba bitim réew dégg naa fu ne lay dem partout la kii kii fi mu toll international la dégg naa amut visa de waaye day tukki rek day tukki <laughs> te kenn du ko laaj visite waaye burdu bi altine altine jan assise nag xam nga lum da waaw moom it ceeb dawlin bi muy jël di yónnee da cee war a yónnee ko sëriñ si waaw da ngay burdu damay burdu kañ lundi mm-hmm. assise lundi na yónnee ci ceeb beeg dawlin ci fii sama kër mantu sant santa wi njaay nag xam nga nag mm-hmm. soo fi occasion mm-hmm. buñ gis nag lii may wax damay wax pour neexal ndax Aziz sama kal la Njaay la sant ma sant Cissé xam nga nit ñi danañuy gis sax lenn nit di ko def ñu am luñ ci bëgg ki non li mu doon wax bër ci démb rek ci yooyu la ñu ne bu làmb xase dugg na ku nekk sa mbër ki nga tal Moodu laa sama kal la waaye na yónnee ci ceeb beeg diwlin gi fii ci kër gi dégg nga burdu bi altine la altine bii ñu jëm bii ñu jëm hmm. invité naa mbër yëpp hmm. taggkatu yonent yëpp waa wakaam yëpp rawatina waa diaspora bi wasalaamaaleykum jërëjëf